Yonaas saar fukk ak amoon na benn waay bu woppoon ñu koy wax lasaar ma nga dëkkoon betani moom ak maryaama ak màrt mi mu bokkaloon ndey ak baay maryaama mooy jigéen ji sotti ji laj koleñ ci tànki borom bi fompe ko kawaram moom la càmmoñam lasaar woppoon ñaari jigéeni lasaar yónnee ca yeesu ne ko borom bi sa xarit wopp na bi yeesu déggee xabaar boobu mu ne lasaar de woppam jooju du ko mujje day wone ndamu yàlla tey màggal doomu yàlla ji yéesu soppoon na màrt ak maryaama ak lasaar bi mu yëgee nag ne lasaar wopp na mu toogaat yeneen ñaari fan ca barab ba mu nekkoon ginnaaw loolu mu ne taalibe ya nanu dellu yudde taalibe ya tontu ko ne kilifa gi yàggul dara waa yudde doon nañu la wuta rey ak i xeer nga di fa dellu yéesu ne leen xanaa du bëccëg fukki wax toog ñaar la kuy dox bëccëg du fakastalu ndaxte day gis leeru àddina si waaye kuy dox guddi dina fakastalu ndaxte leer nekkul ci moom yéesu wax loolu teg ca ne sunu xarit lasaar nelaw na waaye maa ngi dem yee ko taalibe ya tontu ne borom bi bu nelawee kay kon dina wér yéesu dafa bëggoon a wax ne lasaar dee na waaye taalibe yi dañoo xalaatoon ne mbiri nelaw rekk lay wax ci kaw loolu yéesu wax ci lu leer ne lasaar dee na bég naa ngir yéen ndax li ma fa nekkul ngir seen ngëm gën a dëgër waaye nanu ko seeti noonu tomaa ki turam di tekki seex bi daldi ne yeneen taalibe ya nanu dem ñun itam deyandoo ak moom bi yeesu agsee mu fekk ne bi ñu dencee lasaar ak léegi mat na ñeenti fan betani ma nga ca wetu yerusalem diggant bi matul woon sax ñetti kilomètre yawut yu bari ñëwoon nañu kër mart ak maryaama ngir defal leen ci seen deewu càmmeñ bi yeesu ñëwee màrt yëg ko dem di dajeek moom fekk booba maryaama nga toogoon ca kër ga màrt ne yeesu borom bi boo fi nekkoon de sama càmmiñ li du dee waaye xam naa ni fii nu tollu sax loo ñaan yàlla mu may la ko yéesu ne ko sa càmmiñ dina dekki màrt tontu ko ne xam naa ni dina jóg bésu ndekkite la keroog bés bu mu ba yéesu ne ko man maay ndekkite li maay dund gi ku ma gëm boo deeyee it dinga dund rax ca dolli kuy dund te gëm doo dee mukk ndax gëm nga loolu mu tontu ko ne waaw borom bi gëm naa ne yaay almasi bi di doomu yàlla ji wara ñëw àddina bi màrt waxe loolu mu daldi dem wooyu maryaama ne ko ci pet kilifa gaa ngi fi mu ngi lay laaj bi maryaama déggee loolu mu daldi jóg gaawantu dem ci yéesu te fekk duggagul woon ca dëkk ba waaye ma nga woon ba tey ca barab ba mu daje woon ak màrt noonu yawut ya nekkoon ca kër ga di defal mariyaama gis ko mu ne bëreet génn ñu daldi koy topp defe ne day jooyi ca bàmmeel ba bi maryaama agsee nag ca yéesu ba gis ko mu daanu ci tànkam ne ko boroom bi boo fi nekkoon sama càmmeñ du dee yeesu gis ne mi ngi jooy te yawut yi ànd ak moom itam ñu ngi jooy mu daldi jàq am naqar wu rëy mu ne leen fu ngeen ko denc ñu tontu ko ne kaay gis sang bi yéesu jooy noonu nag yawut ya gis ngeen ni mu ko bëgge woon waaye am na ca ñoom ñu doon wax naan moom mi ubbi bëti gumba gi ndax mënul woon a fexe ba lasaar du dee yéesu dellu am naqar wu rëy daldi dem ca bàmmeel ba pax la mu ñu yatt ci doj ube ko xeer yéesu ne dindi leen xeer wi màrt jigéenu ku dee ki ne ko borom bi dina xasaw xunn fii mu nekk ndaxte am na ci bàmmeel bi ñeenti fan yéesu ne ko ndax waxuma la ni boo gëmee dinga gis ndamu yàlla ñu daldi dindi xeer wa yéesu xool ci kaw ne jàkk asamaan ñaan yàlla ne baay sant naa la ci li nga ma déglu ba noppi xam naa ni doo jóg ci di ma déglu waaye dama koy wax ngir nit ñi ma wër gëm ne yaa ma yónni bi mu waxee loolu yéesu woote ak baat bu dëgër ne lasaar ñëwal ci biti néew bi daldi génn ñu gis càngaay li ñu takke woon tànk yi ak loxo yi ak kaala gi ñu muure woon kanam gi yeesu ne leen tekki leen ko bàyyi ko mu dem yawut yu bari ca ña ñëwoon kër maryaama te gis li yéesu defoon daldi koy gëm waaye amoon na it ñu demoon ci farisiyen ya nettali leen la yeesu defoon farisiyen ya ak saraxalekat yu mag ya woo kuréelu attekat ya ne nit ki kat yi muy def a ngi bëgg a bari lu ñuy def nag ndaxte suñu ko bàyyee mu jàppoo nii ñépp dinañu ko gëm te kilifaay Rom yi dinañu ñëw daaneel suñu kër yàlla gi tas suñu réew amoon na ca ñoom ku ñuy wax kayif te mu nekkoon saraxalekat bu mag ba at mooma mu ne leen xamuleen ci mbir mi dara xanaa xamuleen ne kenn nit rekk dee ngir ñépp mooy li gën ci yéen bu ko defee réew mi du tas loolu kayif waxu ko woon ci sagoom waaye li mu nekkoon saraxalekat bu mag ba at mooma moo tax yàlla xiirtal ko mu ne yéesu dina dee ngir réew mi du woon rekk ngir xeet woowu waaye ngir itam doomu yàlla yi tasaaroo yépp dajaloo nekk benn keroog la njiitu yawut ya dogu ci rey yéesu taxoon na ba yéesu dootul doxantu ca biir yawut ya noonu mu dem ca gox bu jege màndik ma ca dëkku efrayim foofa nag la toog ak ay taalibeem bésu jéggi ba di màggalu yawut ya mu ngi doon jub si ba ñu bari ca waa àll ba di dem yerusalem balaa booba ngir sangu ji set ñu ngi doon wut yéesu tey waxante ca kër yàlla ga naan lu ngeen ci xam ndax dina ñëw ci màggal gi walla déet saraxalekat yu mag ya ak farisiyen ya daldi santaane ne bu kenn xamee fu yéesu nekk mu yégle ko ngir ñu mën koo jàpp